ministre de la justice garde des sceaux def ab sorti di indi ay leeral ci li nga xamante ne nii moom la ñuy xaar euh, sénégalais yi sax am ñoo xam ne tàmbale woon nañ di fëgg ci kaw table bi di laaj à que euh, justice def liggéeyam ci li nga xam ne nii gis nañu ko fii rapport yi génne ko ci ñu bëri ñoo xamante ne rapport yi épinglé nañu leen euh, la mu xamle rek mooy ne Euh, dinañu jël mbir yi dénk ko ay euh, juge yu indépendant ak yu expérimenté su ko defee ñoom ñooy xool ban tournure la mbir yi di jël ak ñoom naka lañ koy doxee ban euh, jàngat ngay def tey jii ci sortie bu ministre de la justice bi. ok sortie ministre de la justice bi est-ce que tu sais que tous ces tirs la yi Bah Diakhaté consort. Mm-hmm. du moom rek ah Bah Diakhaté y ay Suzanne Camara bëri nañu quoi. Mhm. tir groupé yooyu c' est une bonne stratégie dama ki Sall et de ses acolytes gis nga euh, rapport Cour des comptes bi ak euh, milliards yi ñu yàq luubal ko. Mhm. man bëggoon naa ñu génneel ñu ci benn chiffre bu exhaustif boo xam ni dañu naan. na nanuñu defal un rapport global parce que dafa bari bari goo xam ni ñun mënuñu xam ñaata la et moi je demande euh, aux autorités de nous donner un chiffre quoi nanu ni depuis depuis depuis douze ans. Mhm. Macky Sall eh, eh, eh, bon Macky et son équipe. Mhm. tant de milliards la ñu luubal te soo ko calculer woon euh, moom est-ce que du yegg deux mille cinq cent milliards parce que euh, si. ragal naa dina ko loolu li ma wax nii nag mosuñu koo génne. Mhm. mosuñoo def le total. ñu ngi wax rek gauche droite mille milliards fii euh, mais la dame de la dame de l'ex dame de Ahmed Khalifa Niass. Mhm. mais yow ñu jox la un milliard fond un milliard six cent soixante six million nga ne génne naa ko loxo ak loxo décharge sax amu ko traçabilité non c'est ko naa ne naa ko njar loolu la wax naa ne naa ko njar dem naa naa naa ko njar euh, euh, femme boobu du nara femme bi amul yéenay rend compte parce que bi Macky Sall doon recevoir euh, les élus locaux là ah, mooy dernière réunion bi mu def. mooy mhm. wax ci troisième mandat bi moom moo yoroon la parole. di xattaraayu di dem ci plateau yi Sénégal fu ne mu ne fa naan ko soo demee ñu torox mais man comprendre mais bi mais ndekete <laughs> mais li a taxoon mais six cent six cent soixante six ndaw si xool ko ni mu toll njarum soo ko tax a toll non non c'est une femme balèze alalu réew mee ko tax a balèze <laughs> du du liggéey. mais cette dame là xool leen ko ni mu balaise ah day lekk lu neex di naan lu lu lu lu lu di tëdd ci clim xool leen ko eh, suñu 666 milliards. ndaw soosu xoolal dafa tàmm fooy ay milliards may jëkkëru milliardaire rek la yor ñaata jëkkëru milliardaire la yor Ahmed Khalifa jëloon na ko fi euh, keneen ki jëloon na ko fi ñoo ñëw Macky Sall joxaat ko milliards lu mu ci def da koy fooy 666 milliards fooyee na ko. millions voilà non 666 million foowee na ko mais loolu nga nga foog ni dañ koy bàyyi mu doon euh, pertes et profits léegi ak ñoom ils savent que guillotine bi day day dal seen kaw te il font tout pour chercher un link avec Ousmane Sonko. Mm-hmm. ils veulent en faire une chose politique Abdoulaye Wade moo leen ko jàngal parce que nee na leen euh, dossier judiciaire su leen naree sonal rek politiser leen ko. su ngeen ko politiser rek ci mbedd bi la jëm. Mhm. sëriñ si daw la nga amu ci ku ci nekk am ci sa morceau peuple bi dugg si su ko defee justice bi dafay nara a bon affaiblir quoi. Mhm. Ah, un dossier judiciaire soo ko politiser rek tu vas affaiblir la justice ce n'est rien d'autre que euh, calcul bon tactique gu Macky Sall il veut politiser les la là alors la alors la nag euh, il faudra que ñun ñu taxaw. jàppale Diomaye et son équipe ci seen euh, lël bi nuy war a def le 28. Mm-hmm. réforme justice bi daar daar. Mm-hmm. dans les plus brefs délais. Mm-hmm. libérer justice bi grand. libérer ko mu jël ay dossiers am dem liggéey ji. waay Diomaye jël ay dossiers am liggéeyi parce que Diomaye sant ñu ko du liggéeyam Diomaye n'est pas un magistrat. waay Diomaye c'est un inspecteur des impôts et domaines ñu dénk ko réew mi mu war a lijjanti mbay mi. ñun jomaay li ñu koy lijjanti mooy nawet baa ngi ñëw grand demal demal lijjanti ñu tool yi. ay dossiers yi ñu perdre suñu temps ba jaxate gauche droite ñoom la teree nelaw ñun terewuñu nelaw de ñoo koy ñoo koy agité nii pour que ñëpp di ci wax pour en faire un dossier politique affaire bi du politique dem leen wuy ji. affaire bi c'est judiciaire dem leen ci tribunaux yi wuti ay avocats yu baax grand moo gën ngeen ngeen bëgg a sonal nit ñi. Mhm. di jël ay booy di leen jox xaalis ñuy dem ci internet bi di saaga nit ñi pour que coow li am ci euh, la xalif de kii bi ci dugg si. mais mais on sa demande est-ce que c'est pas un complot d'État parce que nag ces lobby yi nan ko wax te day nag il faut qu'il arrête ces lobby là. man yàgg naa wax ni mais Macky Sall dafa wéeru ci ay lobby grand ay lobby la wéeru toogoon fi di ñu sonal lobby yooyu nag ils n'ont qu'à arrêter parce que juste parce que ñun duñ ko nangu ah. il faut que tous ces lobby arrêtent justice bi moom may ñun en tant que citoyen mayatuñu benn citoyen dossier judiciaire mu ciy wax euh, donte chef religieux nga waaye donte xalif général nga amatoo ci droit Sénégal nanu yegg foofu chef religieux même xalif général amatul droit di yëkkati kàddoom di ko teg ci dossier bu ne justice fa la ñu war a yegg avec cette réforme judiciaire parce que nag ñoom yàlla xolal yàlla bi ñu sàkk sax yàlla bi ñu sàkk sax jox nañu cër yàlla marxuraan da nga ci est-ce que da ngay dem ci arxuraan di ca fekk verset boo xam ne ñu naan la dérogation non su dee lii la defee leen ko nii déedéet la yàlla ba muy wàccee arxuraan bi pour ñëpp la ñëpp tolloo ci maase li nu jàng ci seen téere alxuraan yi nan ko doxal justice non yonent bi sallallahu alayhi euh, il fut un tout complet quoi mm -hmm. il fut il il fut un chef d'État il fut un juge mm-hmm. yonent bi da daan atte mais yonent bi bi euh, bi ñu ko indilee ndaw si sàccoon mm-hmm. ñu dem recherche yi ñu ni noonu nanu dem ci Zayd bon Ibn Harisa Euh, non non euh, nanu dem euh, parce que doomu Zeyid bi quoi. Mhm. no nanu seeti bon Osama doomu Zeyid son fils adoptif. Mhm. ñun du ko bëggoon affectif. ñu dem ci Zeyid non ñu ñu dem ci Osama ne yonent bi da ko bëgg ba rus ko nanu jaar ci Osama. Mhm. pour pour que mu ñaanal ñu njekk ci yonent bi keroog keroog kanamu yonent bi xar kanamu yonent bi tàng na tàng goo xam ne mais nag yonent bi mer gi woon ci moom musuñu koo gis. mu ni leen lii ngeen ma indil tey moo alagoon xeet yi leen jiitu la justice de l'araignée mm-hmm. il ne retient que les faibles ñu foori mu bàyyi leen mu ne leen lii nii mu waat ni Fatima sax su Fatima sax su sàccoon mu dagg loxoom mm-hmm. mu ne lii bu bu bu bu mu amati bu ngeen ñëwati fii di ñaan njekk ci ku tooñ su saabu yoon dalee ci kawam nanu nu dagg loxoom Mm-hmm. yonent bi taxawee noonu yow kii tooñ gor yi justice war a def loxoom un chef religieux waroon na ci sax rusa wax nan ko wax te dee waroon na ci rus rusa wax de léegi nag réew mi nanu yegg foofu avec avec les chefs religieux parce que fi nu jëm ak fi nu jëm ci réew mi fi ñu jëm ak fi parce que ñoom ñu ngi leen doon saaga ñëpp di ko ñaawtu ñëpp di ko ñaawlu ñu naan saaga saaga yi parce que ñooy dugg ci lu seen yoon newul dossier judiciaire bu nekk en kii tooñ na ñuy war a wax war a war a atte yow yow dossier bi sax atteeguñ ko sax mais bàyyil ba nu atte ko sax ba jugé ko ba yóbbu ko sax nga mën a ñaan njekk mhm. mais yow justice dafa gul. mais moom dafa ne juste mi ngi mi ngi mi ngi ñaanal mu génn ci nattu yi. Euh, mi mi ngi ñaan. mi ngi ñaanal euh, ba Diakhaté ak euh, imaam imaam imaam ndaw ñu génn ci nattu yi nga xam ne ni ci lañ nekk ñaan. ah dafa ñaan d'accord ñaan c'est bon mais daal chef religieux yi daal. Euh, mën nañu parce que ñoom franchement euh, ni ñuy yëkkatee kàddu ci dossier judiciaire yi sax nañ ko arrêté quoi parce que nanu bàyyi justice def parce que ñoom yàggoon nañ ko wax ah nanu bàyyi justice def liggéeyam. Mhm. te man man baat boobu maa ngi door a xam la portée de ce mot. il faut que il faut que ñu bañ a entraver euh, l'exercice de ce pouvoir judiciaire la mhm. parce que nag xalif général bu wax. d'accord na xaw sax. dafay xaw a kii bi quoi da koy xaw a influencer. Mm-hmm. dafay war a influencer le déroulement de la justice. Mm-hmm. parce que ñoom itam ay cër lañ fi am. kilifa lañ am nañ fi pouvoir. d'accord euh, nanu bàyyi pouvoir judi judiciaire bi déroulé parce que yii suñ ko seetaanee rek ci kanam tuuti dinañ war a régler réew mi marabu yi génnaat fii di wax euh, booy yi di commencé waat di déconner quoi. Mm-hmm. d'accord nanu yam ci seen euh, place chef religieux te bàyyi justice justice bi daal nañ ko bàyyi libéré ko quoi. te bu ci kenn wax kenn amu ci droit wax. d' accord ah. d' accord ci justice bi la ñuy des sax. Euh, ba tey euh, monsieur Wade gis nañ ne euh, ce 28 mai bi ñu jëm ñu ngi jëm ci ab dialogue national boo xam ne cette fois-ci dañu bëgg a waxtaan ci réforme yi ñu war a def dans la justice bu ñu waxee justice du ñàkk ñu dellu tuuti ci ginnaaw bëri na dossier yoo xam ne bu ñu doon xool ni justice doon doxee bëri na loo xam ne peut-être waroon nañ ko ci yi actuellement daanaka ci ñaari weer yu jiitu ci reñ bu